asalaamaaleykum mbokku internet Dakar Midi ñu amati mbégte kontante nee naa la leen demee saa ne seen émission bi am émission lambi tey te nag ñu seet champion di ndaanaan di xale boo xamante ne moo fi am ni ngi ni démb le 25 nekkoon seen lamb yi mu war a bëre ki ne mooy Malick Ndiaye 37 fu yàlla dogal lamb jooju am ay mooy combat yi ñëw ba jour ji lamb ji yàqu ci ay loo xamante ne tey ay détails la lamb ji war nañ ko mën a seggaat xoolaat tamit lamb ji lii doxal lamb parce que lamb tamit nee la am nañu ndaw ñu bari ñoo xam dañu dëkk ñu xam a ne mooy Bou Siteu parce que na la nañ koy bàyyi mu nuyu ak internet à Dakar Midi bu ma ngi leen waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant sama gaa yëpp mafia bi ah di bëggee gaa yi tey fii yëpp ay ñoom Moussa Fall xam nga ñoom Baba Sylla ñoom Bàcc maam Cheikh mafia bi xam nga gaa yi mooy loolu ñoom Pam Massar xam nga ay ñoom Issa Boy ñoom Salalaaw xam nga ñoom Bàccoo gaa yi xam nga rek gaa yi ñu sonn si combat yi si combat bi lu méttee méttee métti waaw kon maa ngi leen di sant bu baax di sant képp ku jàpp si combat di sonn rek waaw sant naa bu baax a baax a baax. bu bañ a annoncé ne combat bi yàqu na loolu nan la leen def ñu xëy ñu annoncé leen ñu ne ah ji yàqu na ngeen préparé ba def li nga war a def lépp. waaw maanaam métti na ndax ngay wàcc sa combat di pare xam nga combat boo xam presque huit mois la waa presque huit mois la ko préparé xam nga boobu ba léegi mbas bi jaaroon fii te lépp mooy loolu ñu ngi téewoon sunu avance tey yàlla def ba heure bii nii xam nga. ñu dem ba war a bëre la vingt cinq juillet ñu ne tap yow boo xoolee boo xool nga xam ne vingt cinq juillet àdduna ko doon xaar international ñëpp di xaar sama combat maa ngi Malick Ndiaye 37 fu ndax xam nga wax ji bëri na trop waaw te moom dafa nekk koo xam nit bëri wax la maa ngi seetaan benn émission am sax muy wax nee na ma damaa am nee na ma damaa am ñaan quoi nee na damaa am ñaan comme combat lu mu waa yàqoo nii barke Serigne Touba te xamul ni moom moo am ñaan man combat ba ma déggee dafa yàq sama maay dafa si moom la njëkk a daw ma ne non man kii dafa am ñaan barke Serigne Touba Mbacke te parce que liggéey loo xam te ne Malick Ndiaye gëm naa ne liggéeyu ko te bu ma ko jàppoon maanaam sama làmb la woon démb Malick Ndiaye du kooku laay taxawal sax ko mooy di xaw a am xel ñaar wala dara te kooku lu ma sekkoon moom muy arbitre bi bi ne pip ma jàpp ko defaral ko daan ko xooli leneen waaw te instant nag feneen laa teg sama ba tegatuma ko sax si moom te parce que moom xama rek waaw mooy loolu amaana ndeysaan nii rek la mënoon demee sama diggante ak moom. bilaay walaay taalaay promoteur bi ba yëf yi amee ndax promoteur bi moom maanaam ban kii la si def ban jàngat la def est ce que seet na leen tamit est ce que jël na tamit mu bëri. waaw man promoteur bi moom démb lañ gëj a déggante démb ba ma woowee na ma affaire yi yàqu na si suba gi fekk ma togg samay regroupement rey sama nag xam nga rey xar gars yi moo loolu financé xaalis bu wax tàll tey ngay préparé ba ay 11h xamu midi. mu woo na ma làmb ji mooy loolu na ma làmb mu mujj mooy mujj nañ koy yàq ndax kii bi zëmi yi zëmi yi la gars yi ma sam waay koñe fa lañ leen koñe. si zëmi yi lañ leen koñe fos l'ordre yi. mais maa kii euh, Pape Sarr ba li nga xamante ne añu zëmi sax. ñoom fay nañ ko ba joxe ko joxe lépp loo xamante ne tey euh, di jëm si wàllum kaaraange stade bi waaye déggoo man sama reliquat reliquat mbër yëpp a ngi CNG suba la mardi suba laay dem jëli sama reliquat waaw mbër yëpp suba la ñuy dem jël seen réeré kaa waaw maanaam ñun duñ promoteur bi li nga xam te ne moo ko warloo nag événement bi lépp def na ko jël na six million yóbbu ko suñu réeré kaa nga xam combat bu jeexee fay six millions desee maanaam frais de organisation bi. waaw frais de organisation bi ak zemi zemi rek ku la ku xam zemi xam ni zemi yi deux cent mille lañ leen fay. añ bu la neexee koy jox bu la neexee doo la nga koy jox trois cent mille la fay. trois cent mille la fay policiers yi. pour ñu war a ñëw teew si affaire bi joxe lépp. kon léegi ñooñu CNG la wàccoon ak CNG. pour pourquoi CNG. xaw ma nu mu demee noonu ñu yàq sunu làmb. ñu yàq sunu làmb te service so kii bi. alkaati yi xam nga ñëwuñu estaat ñun sunu combat ñu négliger ko. yàq sunu bis te démb si guddi rek mala la sam waa démb la ñu yàq sunu combat démb si guddi kii am na. Oh, signature waaw Balla Gaye kii am na mais loolu mooy lan loolu mooy lan yow imagine toi yow koo xam dafa investir mhm. nekk si kaaw bi investir xaalis bu weex tàll ñëw bëgg ko def def ko ci jeunesse bi jëlul xaalisam dugal ko si leneen da ko jël tas ko si si doomu aadama yi si jeunes yi mhm. xam nga kon kooku day investir mu ngi liggéey mhm. mais ko amuñ pourquoi ñu gars yi war a mën a yàq làmbam pourquoi war nañu ko may ñu ko sens mais kooku yow waarante Dakar seen premier journée. dëgg la tëgg combat mel ni mais ñooñu may leen sens. Mhm. parce que Serigne Touba yow loo xam si jour bi ngeen ngeen fexe ba yàq affaire yi. Mhm. xam nga ta problème bi lan la problème euh, problème mu Covid bi la parce que ñu ngi wax si affaire corona du pour affaire Covid du dara ndagate maanaam. yow ku xool combat Bou Siteu xam ne fii képp ku fi wax combat yu taxaw sama combat moo fi gën a nekk coow. xam nga sama combat moo fi gën a nekk coow. amaana na xaw ma loolu la ñuy siisu moo tax ñu yàq sama bis. Mhm. pour bëgg gis nga bis yu si topp neen day am. te te te samedi billaay wala fii laa la ko waxee lamb bu amee foofu di nga gis beneen xar kanamu Bou Siteu beneen façon nit. Mhm. ak sama mbooloo ak Pape Sarr ay délégation yu mu war a ñëw képp ku waroon bëri si combat dinañ def délégation boo xam te nii dinañ ñëw stade lamb du fa am wala kon bakkan rek lañ fay jëlee te parce que war moom du ma pare sama combat gars yi fere si xaalis yàq si ay millions xam nga tey jii ne kam kam moo may subvention ka moom mooy surveillance promoteur man leer na mu yàlla yàlla ko surveillance te état war nañ ko surveillance jox ko xaas bu bëri te parce que dafa jugee bitim réew ay mboqam ñëpp jugee bitim réew dagg bee avion ñëw ba fii tey jii bëggoon fekkee seen journée boobu waa rent Dakar xam nga Alain maa ngi koy masow bu baax a baax a baax Alain maa ngi koy masow damay toog ne xalaat Alain rek barke Serigne Touba jooy rek moo may dese ak Jumbo. ndax yow boo xoolee luñ daj ci combat bi. luñ def si lamb gëj na am ci lamb. luñ def si lamb gëj na am ci lamb kenn amul promoteur yi kenn amul fit du tëgg li mu tëgg. benn combat bu ci nekk grand combat la. tey nga tëgg dix grand combat yëkkati xaas bu weex tàll mbëru cent mille amu ci. déedéet bu ci amee kon beneen combat bi la combat Laurent bi. moo ciy mbëru sambil ndax ñooñu ay première combat lañ bëre. bi mooy seen première sortie. xam nga yeneen combat yu si bëri yeneen combat yu si des yëpp barke Serigne Touba Mbacke cinq cent mil six cent mille sept cent mille huit cent mille ba ay millions ba jëm ci kaw. te yow ay ndaanaan ñoo si doon bëre. tey jii nii yow ñooñu dem ba pare seen lamb yoraluñ seen dara. Mm-hmm. da ngay gis xool xoolal zëmi deux cent mille lañ leen di fay trois trois cent mille lañ facturé semi. maanaam ñooñu dañoo nekk ñoo xam ñi soog a ñëw si lamb si bu ñu. te dañ gaañ nañ leen bu baax man xam naa ne gars yi gaañ nañ mhm. loo xamante ne ay deux cent mille la nga nga ñëw ne leen trois cent mille la ñooñu loo leen wax ñoo arrêté mhm. loo leen wax ñoom kenn du leen yàpp ñoom dañoo yor xaalis. Mhm. xam nga investir di liggéey. xam nga lu leen waay wax ne leen nii ak nii ñu fay. matale seen lépp seen gan yi jugee Europe ñëpp ñëw. tey jii ngay mayoo leen chance nga yàq journée bu mel noonu barke ser man dama ko yërëm man année tey yéen du ma la nëbbu de buñ ma woon mbër na ma gaan combat nii dañ ko bëgg a tëga billaay pare naa pour bëgg te soxlaw ma dërëmu joxaan ma ko te parce que dama ko yërëm ma dama xam maanaam li mu daj ci combat bi waaw dama xam li mu daj ci combat bi waay man mii rek déggalu ma la def naa si ay deux millions trois cent mille xam nga ku ci mel ne tamit ñi may ñi nga xam dañ may jàppale xam nga ay nit di ma jàpp ku ci mel ne andaw andaw rek moo loolu. daw ma ci moom mais dafa fexe ba amoon teg man kii bur jàppale ma. xam nga kon ñooñu combat bi dafa nekkoon sa premier combat boo xam te ne yenn autorité yi ñëw ñu jàppale ma pour may toog di leen tudd. dëgg la maanaam dañ dañ dañ ma bëgg a jàppal pour ma bëgg ta ta parce que combat sama buntu lamb waaw ku xam combat bi xam sama premier grand combat lii sama buntu lamb la. daan ko rek dem sa yoon la. xam nga autorités yi ay ñoom ñoo ñoo ñëw jàppale ma yëkkate xaalis. Mm-hmm. ku ci mel ne bébé sama combat tax mu jugee ba Europe ñëw. bébé bu Malika maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu jabaram Yacine. Mm-hmm. sama combat moo tax mu jugee bitim réew ñëw ñëw ba mu ñëwee billaay walaay taala si benn maaraam la ma yóbbu fayal ma deux cent mille bagage yi ba ñëwee suba la combat bi maa yow ñoo àndoon faal mag saa ñoo ànd dem jëli ko si guddi gi ah mu yëkkati xaalis bëri may ma kon ñooñu am na xam ga bëggoon nañ ma gagné sama combat mais pourquoi tamit ay nit ñëw xaw ma ni mu demee noonu dem yàq sama combat ndax lan di siisu te sama combat moo fi gën a nekk coow ñu fexe ba tey mala sam waa ñu yàq sama làmb yàq sama xaalis yow boo ñëwee demb gis nga regroupement yi togg samay añ togg sama def sama open press financé xaalis open press bi rek deux cent cinquante mille laa si fere luwe ay barrière fay sabar xam nga gars yi jàppale ma tey ma ñëw tey ñu yàqal ma loolu yëpp loolu yëpp anamu léegi lépp nekk zéro bërëw ma daanuma ma daan ba pare perte jox ñu leen benn benn solution boo war a doxalee wala bu lamb ji lii moo tax war ñu a tëgg wala bu après ñu jox leen wala yéen mbëri barke Serigne Touba Mbacke déggalu ma la instant ni waa CNG xola tey ji yow yow yow boo tey ji boo fa demee di boo fa demoon tey di laaj kenn ne ko ne moo tax combat démb bi mhm. lu tax mu yàqu xam nga la lañ wax mhm. ay diw da nee na defoon na ojoo partagé ko ay léegi instant bi foofu lañ weer affaire de diw defoon na audio xam nga nee na nii. lamb ji du jël nañ audio yi partagé ko yan audio. yow nit ku war a bëre ba xëy yow lépp mat te tey dañoo yàq sunu lamb guddi gi kii am TFM am. signature signature bi fees dell. waaw mais tamit. dañu waxante dëgg tam lii dafa métti ay nit jug jàppale la. Mhm. tey jii nii xam nga gars yi yàq ko yàq boo xam ne ndax lan service kii bi. xam nga téye eh, koño la si lay lan policiers yi xam nga fay sa lépp policiers yi xam nga xamu nu mu demee noonu mhm. ñu teg ay dil xam nga xam nga lii dama man dafa ma xam lii neexul nga waaj combat daj ci lu ne combat dama si daj coono yi méttee méttee métti xam nga mhm. ma war a mu nekk sama premier grand combat ma war a ñëw daan indi sama drapeau jubilé ku ci mel ne MC mhm. nekk ba Ouest Foire Master Sëñ Fallo xam nga MC xaalis bu bëri la ma may si combat bi may ma waay maanaam ñi si jàpp ñoo bëri ku ci mel ne Macky xam nga ñëw suy ñu gaa yëpp ñëw soutenir ma Cheikh Diop la maire ñëpp jàpp ci di bëggee Moussa bu baax moom mooy doole Cheikh Diop la maire ay Baydi Ba maire Gounass gaa yëpp jàpp ci kon tey di yoon mooy ñëw ñu yàq sama làmb xam nga di yoon ñuy ñëw ñu yàq sama làmb laay wala kàddu ngay dégg nga xam ne mooy waa CNG waaw kàddu yi mooy dégg waa CNG muy maanaam nañ xoolaat seen entourage waaw maanaam nañ xoolaat seen entourage bu baax te xam ne tamit lii nañu def nii duñ ko bàyyi de. bu fi dëkk Alioune Sarr nekk daa fi am. te xoolal Alioune Sarr te Alioune Sarr xoolal bañ ko fiy jëlee yow ñaata sorte lañ def ma koy défendre. te parce que lii dafa mel ne dama ko gisoon. waaw te parce que expérience yi bokkuñoo. dëgg la xam nga expérience yi bokkuñoo. waaw ñoom dañoo gaaw si gis nit la. samp la <laughs> tey jii nii ka lañ fi sampoon di di ko tagg. Bira Sène tey Bira Sène xoolal démb li am si làmb. lii neexul ci làmb te tey leer na ne sax Bira Sène li gars def noonu yëgu ko mhm. xaw ma yëg na ko xaw ma yëgu ko mhm. te gis nga tey jii ni magul làmb yi kenn génnul wax ci lii nii te leneen bu fi amoon nga gis ku nekk génne sa làmb di ratatati mhm. te lii nii tey am ci làmb magul làmb yi la wax de waaw ah, ñu ngi fi kenn ngaangu ci laata te xoolal keroog bañ bañ demee Seeka Caa tey bu keroog xoolal bañ demee seeka caa rek ku nekk génne sa lamañ bu rëy di wax mhm. di mbel mbeli mhm. te tey xool xool xool xool xool tey xool xool xool tey tey tey tey tey tey li gars yi def kenn ngaangu ci déggoo Gris Bordeaux génn wax déggoo benn champion génn wax mhm. magul lamb yi magul lamb yi gi déggoo ci kenn wax ku dul père Bécaye laa seetaan mu naq mu métti lu loolu père Bécaye laa seetaan mu métti lu loolu ak ñeneen ak ñeneen xam nga mhm. nañ bàyyi yi ñuy def lii neexul waaye rente Dakar ay promoteur la comme yenn promoteurs yi xam nga kenn ëpp leen moyen. Mhm. mais ñooñu waruñu ñëw di di di dooleel làmb. yor seen moyen di investir nga ñëw tey mala sam waay yàqal leen loolu. te ñu gisee promoteur seen am ay ñàkk a jubóo ay promoteurs yu yi jeune promoteur ay groupe association. biir yooyu fi mu ne dafa xaw a yàq làmb. yooyu xaw a xam nga maanaam làmb léegi dañ si dugal loo xamante ni dañoo dañuy fàttali ne sax lamb suñu cosaanu maam la. bëgg a ñëw jël làmb bëgg si dugal affaire français yoo xamante ne nii mhm. ay perpervi mhm. ay code xoolal loolu xolo xolo xolo ay temps lamb bu mosaan am suñu yaay suñu papa yi ñëpp yàqamti gaaw télé bi ñëw ñu seetaan soulagé mais tey loolu amatul ay direct mhm. waa Dieye production maa ngi koy sant bu baax lamb ji mu def direct la koy def ndeysaan Dieye maa ngi koy sant moom looloo tax man man naw ko gis nga promoteur da ngay da ngay am yërmande lamb international ko bëgg adduna mhm. waaw kon da ngay gis am na ñoo xam dañoo ñëw si lamb di saboté naan ay code dëgg la ay boo jëndul code am na ñoo xam fii ñaata lamb fi am ñu jënd code toog fii nii mënuñu seetaan ña yàq sunu xaalis loolu dafa commencé te lépp gasson moo ko fi indi ay code xam nga gasson dafa ñëw dafa métti woon na fi mu dawan ah. mu daw bàyyi lamb kon warul ñëw fii Macky Sall buux ko ay milliards mu ñoom ñaar ñuy job mhm. mais mais ñoom ñaar bu ñuy liggéey dëgg la day jàppale Macky Sall na ko jàppale waaye nag na ko jàpp moom dafa ñëw si làmb bëgg a politiquer làmb te làmb du loolu xam nga làmb du loolu làmb maanaam lii li am si làmb ni musul am ci làmb ay code ay perper fii mhm. lamb danaan am nga teg direct gaa yëpp seetaan ko xam nga ñu ñaanal la kontaan ci yow mais léegi lamb day am kenn du xam sax ki dee lamb yi lu mu sol kenn du ko gis sañse yooyu noonu ñit ñi dañuy baax di gis ay sañse xam nga gis aar xam nga gis cosaan ci biir lamb mais tey kenn mënatu la wax cosaanu lamb nu mel ah kenn mënutul wax cosaanu laamu duma te parce que dañoo jël laamu ji. di si dugal affaire français yoo xamante ni ay pay-per-view ak ay cote ak ay yooyu yooyu laa bëgg ñu dindi ko ci làmb mhm. loolu tant que dindi wuñ ko ci làmb xoolal. nii rek lay demee xam nga ñu bàyyi soxorante bi nag waaw waa rente Dakar li leen dal maa leen masawu bu baax a baax a baax mhm. man nag li ma si ñàq mhm. li ma si ñàq ci xaalis waaw garaawul ko waaw naa jël lépp teg ko si loxoy yàlla waaw di sant buuse bu baax moo ma jëndal bologu ticket xam nga buuse maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax xam nga dama toog rek mu woo ma ne ma fayal naa la Pape Sarr jox naa Pape Sarr mu bolog xam nga loolu dafa neex ndeysaan xam nga ñun mbëri ñun amuñu dara ñun nañ ñuy jëndal bolo rek sunu fan si di dem stade mais tey ñu waaj combat bu tol ni ñu yàqal ñu ko di sant Omar Ndiago bu baax ma jox dañoo rey nag mun ne lii du doy joxoon ma xar Omar Ndiago maa ngi koy sant borom seeraas xam nga ñoom laay si ñoom ñëpp gis naa taxaw bi ay elzo bu sita mhm. lii ni ma solon si open press moo ma ko solol elzo maa ngi koy sant bu baax a baax di sant tubaab jaan jàpp na ci combat bi xam nga di sant ñoom Alioune Naar xam nga mhm. gars yi nekk si comme ay ñoom Mama Dia ay ñoom Abdou sal ñoom Thiam mhm. gars yëpp ci jàpp ay yanku xam nga gaa yëpp ma dooleel yokku ma doole jàppale ma kon tey Ibou Morone président Aïssé Lamine Sarr xam nga ñëw soutenir ma jox ma xaalis ku ci mel ni Bibi mhm. xam nga ñoom Cheikh Diallo Thior ñoom Deef waa sabatu lavage bi mhm. du fay gaa yëpp ci jàpp ci combat bi mhm. waa di bëggee cakki bu baax a baax a baax ak Ahmed Lo waa Dakar yi ma jox xaalis ay ñoom ndongo te ñoo ñëpp say Cheikh Jali Coor moo ma boole ak ñoom xam nga ñu dooleel ma soutenir ma jàppale ma may ma xaalis ne ma waajal sa combat di bëggee MC bu baax MC West Foire jàpp na ci combat bu baax a baax maa ngi koy sant bu baax di bëggee maanaam képp kuy jàpp ci combat di bëggee bébé bébé bu Malick ki ma lay wax sànq ne la Europe la jógee ndax sama combat bi na ma xam nga may na ma xaalis bu bëri bébé maa ngi bu baax waaw di sant maanaam képp ku jàpp ci combat maa ngi lay sant di sant sama gaay yi ñoom Babas ñoom Mor Kanji Fall xam nga gaay yi ñoom seexu naa xam nga moo loolu sama gars yi mooy loolu maa maa ngi sant ñëpp ñu jàpp ci combat bi di la bëggee tamit yow Abou di bëggee tamit Mbène Afia sànq doon woo sama téléphone si téléphone am waaw Mbène mooy loolu moom yaay Fall la waaw Mbène Afia maa ngi lay bëggee bu baax victoire bi dama la ko noonu may mais gis nga tey gars yi yàq nañ sama lamb mooy loolu mais yow mooy loolu bu ragal dara Mbène Afia yow jàmm si yow di bëggee tamit waa gàlla bi kër géwal yi xam nga ñoom mami xam nga mami grande seetkat bu mag la xam nga maanaam fii ay mbax séeréer mbax a jaañ waaw seetkat bu mag la mais bëggul sax may may toog sax di ko kii mm. seetkat bu mag la ma bëgg ñu ñu ñëw fii <laughs> mami xam nga nag gars yi ñëw waaw lu mu la wax boo toogee bu la seetalee rek nga nga bàyyi ko da nga naan kii du nit xam nga di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ay mbaxa ay nday jaañ mm. xam nga di bëggee waa gàll bi yëpp nag di bëggee waa koñ bi mm. bu baax a baax a baax jërëjëf eh, Bou Siteu amante nañ mbégte bi ah fi ah waxtaan nañ tey ci li nga xam ne jëm ci mbirum làmb jaar na yoon kaddu yi nga li nga xale yi yëkkati jëm na ci li nga xam ne mooy làmb a ah yëf lool mais tamit ah, di leen masaw bu baax a di masaw di leen masaw baax a a baax xam nga di nuyu ñi nga xam ne ñu fekk fii ci kër gi jogo ah, ah waaw jogo <laughs> jogo ku ci mel ne jogo waaw jogo sama doomu yaay moom combat bi xaalis bëri la ma jox jogo bugul kenn mer moom ah. tee mag sami sax bugul la si bind bugul kenn mer koo xam te loo na moom xaw ma kande mais boo demoon sax yow mi ne ko euh. nii ak nii mu yëkkati cent mille jox la xam nga jox ko yow di la wax ne amal jàmm di bi ñaanal baay baay ak pakala dañoo am nattu ak saxeer maa leen di ñaanal yàlla na kaso bi gaaw jeex xam nga di wax ne na gars yi maytuwaat ndax xam nga état bi man xaw ma dañoo bëgg a tëj ñëpp xaw ma nii da ngay am problème portable taxu ñu tëj la ñetti at ay deux ans ci ay xale yu ndaw yoo xam te ne nii tey tey ñaata booyu da nga naan ñii yow ay ponk ay te ay xale lañ dañ leen a jàpp tëj leen ay kaso yoo xam te ñu màggee ci kaso bi génn am fit doon bandi kon loolu maanaam jëmalewul réew kanam ay xale yu nga jàpp leen war leen yóbbu sax yóbbatuñ fa nit billaa da ngay gis xale bu ndaw bu am quinze ans ñu jàpp la yóbbu la cent mètres yàq si seer xam nga waaw di wax ne tamit nag gars a may tax xam ne barab bi ak tribunal bi li fi gis tiital na ma te maa ngi ñaan ne ñëpp bàyyi lépp mu sedd kaddu yi am na solo di ñaanal boo yooyu noonu yàlla leen yàlla ñu génne si jàmm salaam di wax tamit ah gars yi nañu xale yërmande xam na fii ku ne ku loolu tamit xam nga jeunesse la rek loolu après ñuy bu baax a baax a baax di jox gars yi ah, beneen émission ak yeneen tamit bu Siteu kaddu yi am na solo lool lool jërë jëf mbokk internet Dakar Midi merci beaucoup jërë jëf ak seen émission bi mooy émission Lambi tey jëf